léegi yow yow yow Medina Jang da nga yaakaar ni yow da ñuy tëjlu ba noppi après yow gars yi jàllale la quoi yéenewuma benn Sénégalais mu càng Maroc fépp sax génn la ndax nit ñaa ngi fi nekk di liggéey fépp génn la su ma sañoon ñun ñëpp ñu am lu baax loo xam ne dañuy dellu suñu dëkk mais xoolal lii ñun ñëpp ñu ngi tasaaroo génn dëkk ba ku nekk daw ba noppi waxuñu lu ñu dajale pour ñu ñëw xool nu ñu tabaxee suñu réew mais nekk di gën a féewale léegi yéen lan mooy seen intérêt italiens yi déggu leen seen histoire xanaa ñoom ñëpp dañoo tukki woon mais dañoo dem ba benn jamono ñu dajale lépp tey gis leen seen dëkk bi nu mu toll mais yéen gisoo dara du dox sama sëriñ dang moo war a avancé moo war a am kiraama moo war a am maqaama waaw salaamaaleykum broda allo allo waaw salaamaaleykum allo nañ la bro participer tuuti rek. ci ci ci bi live bi parce que sànq maa ngi doon woote mais xam da nga quoi. E, ah dëgg la e, dëgg la e. yaa ci biir léegi. waaw ñi ngi bu woon def benn tënk bu gaaw rek si deux minutes trois pour bañ a téye ligne bi. sa temps ok ay ay kimi de, këmi dëg. mbalit yu ak détail yooyu ñuy wax. Mhm. loolu noonu. Mhm. loolu noonu indiwul benn celeñaa parce que ñii di jël ay ay problème ay kimi di ko di ko di ko jéem a xeexe ay élection parce que ay parce que kimit sana kimit li jëndiwul tarixa mhm. ñoom li leen metti moom bay ñun nit ñu ñuul ñi avant mhm. avant diine waxuma tarixa de avant diine waaw ñun dañoo nekkoon nekk am ñu nekkoon mhm. diine ba mu ñëwee ñëw pour pour defar ñu xool ka tubaab yi bi ñu ñëwee indi christianisme dañoo ñëw forcé ñu duma ñu dugal ci christianisme ba pare sàcc suñuy alal yàq suñu dëkk dem yaa ngi ba pare ñoom ba tey jii nii ñoom dañ ñoo xeeb léegi nag tamit ñoom seen problème du ay l'islam ak ay christianisme ay leneen seen problème mooy yéen naka ngeen ñu mën a indilee dëgg ba pare di ñu xeeb di ñu dëggate boobu ba tey mhm. ñoom loolu ñoom foofu la ñuy xaw a waxee comprendre nga mhm. donc tamit ay lijjantiwul sax ay tarix ak yooyu noonu yooyu gars ñoo ko si bëgg a dugal rek pour pour pour yokk coow ah, ok mhm. comprendre nga ñun ay jullit lañu mais kimi gi des fois fi ñuy waxee da nga leen di jox raison parce que yow mënoo ñëw nekk arab indil ma diine l'islam pare yow nga ba pare yow ba pare ñun ñi sax ñun ñi sax comme comme comme femme bi doon saaga keroog affaire ay di saaga ak yooyu noonu. Mhm. li mu wax boo seetee benn benn sens man saaga yi ànduma ceeg moom. ñi mhm. saaga ñëpp waru leen saaga parce que jëndewu ko ak ñoom. Mhm. parce que dèjà Thierno Souleymane Balla bu ñu bu ñu ñëwoon Sénégal ni képp ku am 10 ans jëm kaw nañ la faat ñu fi am ñi desee 10 ans wàcc suuf ñu tegal leen histoire Thierno Souleymane Balla tàggal leen ñu beneen Sénégal. boo xamante ni day baax ilaa nekk fi sax di muy wax mooy ñun tey jii. Mhm. diine bi ñu indiloon rey ci suñuy maamu ceddoo. Mhm. duma ci ñii nangu ci ñii lii def ci laa diine boobu tey sax li mu wax li li lislaam wax li téere lislaam wax amul Sénégal ñiy wootewoo diine def dunduñu loolu doxewuñu loolu. Mhm. comprendre nga parce que ñun tey musulman yi ñoo gën a sonn ci àdduna bi ñoo gën a tardé ci àdduna bi te te bu ñu toppoon diine leneen la ñuy wax heure bii. bu ñu toppoon diine ñi gëm ñi gëm diine di joxe azaka kon kon sénégalais du ñu sonn. li diine jàngale femme ki la jàngale femme bi saaga noonu boo ko déggee mu ngi koy danaan li téere yi wax authentique ñun defuñu ko ñun dañuy dañuy théâtre rek dañuy sonal ñu bopp rek mhm. yaa ngi dégg fu may waxee nii mhm. boo seetee nag problème mu ay diine ay ay affaire ay pël ay séeréer rek yooyu mhm. libéraux yi ñoo ko fi indi parce que au du temps des des des des socialistes euh, nitu nguur gi daan nañ daan nañ jëflanteeg nitu nitu nitu di waa këru diine yi daan nañ jëflanteeg ay xeet ak yooyu mais ñoom dugaluñ ko woon ci mais mm-hmm. Abdoulaye Wade moo ñëw jël tarixa dugal ko ci biir république bi Macky moo ñëw dugal ay affaire ay dugaloo ay net ko bandum ci biir république bi mm-hmm. loolu moo indi problème ok mu saaga pël yi mm-hmm. c'est parce am na faamu pël bu saaga woon dèjà ay ay xeet ay olof Mhm. ba pare ak ah, ay net doo ko bandum bi mu ci biir république bi mhm. comprendre nga waaw boo xoolee chaque jour sax problème Ousmane Sonko gars yi foofu koy jéem a yóbbu ay dor ay Casamance ak ay sudiste ak ay régionaliste yu demee ni kii waaw nañu waxante li fi nekk mhm. man daa nit ku bon sax man ñu lay saaga parce que amul sens saakantuma laak ñoo ñu doon saaga femme bi ñoo ñu doon saaga ay nit ñu baax lañ ñu def li ñu war a def fii Sénégal ay Thierno Souleymane Ball Thierno mm. Souleymane Ball li fi li woon bu ñu ko bi ñooy ñooy dëgg dëgg yaa ngi dégg. kon mhm. kooku lu ko lu ko lu waroon def na ko moo xam tukulóor moo xam séeréer man yooyu intéressé wu na nekk sax na nekk sax dëmm man loolu intéressé mhm. li mu defal der bu ñuul lu mu defal réewam. mais nag mhm. yow yow mii di naar boo ñëwee indil ñu indil ñu diine yi l'islam. nañu diine mooy diine bi gën suñu yonent mooy yonent bi gën ba pare yow moom man ngay ngay ngay ci jullit ma jullit yow nga may xeeb wala yow nga may tuutal wala yow nga may nga may xoxatal. mais mais ça pose problème. yow mii di tubaab boo ñëwee indil ma christianisme nga ne ma lii mooy christianisme dina Jésus la ku mu xool nga yeewu ku mu ku mu wokk nga wér ba pare yow ci sa wàllu bopp yow nga nga raciste nga mm. bañ ma nga may xeeb ngay sàcc sama alal nga may yàqal tey jii boo demee ci musée yi fii nii bitim réew mm. suñu matériel li ñu ñëwoon nañu lii ay affaire ay xërëm laak yooyu sàcc ko tey ji moom la ñuy exposé fii mm-hmm. loo ko gayan vidéo bu mu ci def fan yi rek mu ngi riir ñu koy dégg te te te jeexagul mm-hmm. li ñu bëgg wax daal ci tënk mooy ku nekk nañ ko bàyyi mu dund li mu bëgg a dund mais ñu amee nit Mm-hmm. activisme ak ay activistes yi xamuñu sax luy chimique mm-hmm. wuñ sax ay chimique ñun lijjantiwuñ chimique lijjantiwuñ jullit lijjantiwuñ catholique lijjantiwuñ juif ñun suñu yoon nekkul si loolu ñun suñu yoon ci li mu nekk moo ñu am réew mu baax réew moo xamante ni nii doomu xalif général bu feebaree fajoo fa bu waree liggéey dem liggéey am lu mu am man sama doom bu feebaree mën a faju bu waree bu jë jotee ci liggéey mën a liggéey am am lu mu lu mu dunde lu mu suturaale njabootam mais pas ñi nekk fii lu baax ci réew mi ñu jox leen Mm-hmm. moo xam fonction boo mën di nekk lu baax ci réew mi jox la boo feebaree dem bitim réew faju say doom di jàng bitim réew doo gis seen doom accidenté doo gis seen doom jàng métier doo gis seen doom di taxawal ci hôpital yi mm-hmm. loolu bëgg mu jóge fi Sénégal boo xam ne lay doon ñëpp yam fii mm-hmm. kenn ku nekk jot ci sa cër maa ngi jégalu si guddal bi ñu ngi leen di jaajëfal rafet na yee loolu dëgg la diine bi waa ji nee na diine bi du diine yàlla diine diine bi du diine arab diine yàlla la mais dëgg la mais yàlla da ko wàcce ci arab la ko wàcce dégg nga dañ koy nangu foog ñu nangu ko dégg nga misiba yi araab yi ñëw def ñu ko buñ leen ci bañee it ñoom ñoo def liñ leen bañee mais yenn saa yi damay dégg gars yi naan dañoo complexe pourtant suñu maam yi fi nekkoon ay xaritu naar la ñu yoroon da ngeen complexe ñoo fi indi diine bi man d'accord naa loolu ñoo ko fi indi mais du caage ne ñoom ñoo ko fi indi rek dañ leen war a topp wala dañ leen kii ñëpp xam nañ ne diina bi diina yàlla la mais nii la ko yàlla nammee nañ lañ ko defee ni ko yàlla nammee rek waaw. senegal nañu jox Sénégal nañu jàngal sénégalais yi suñu suñu sëriñ si jàngal leen taalibe yi ñu xam lan mooy diine kon duñu saaga ndax ku xamoon lan mooy diine xam lan mooy yàlla doo saaga. waaw salaamaaleykum brodo. waaw ziar nañ la. waaleykum salaam. jaar nañ la de. jaajëf waay. alhamdulilah. yaa yaa ngi ci biir waaw. yaa ngi ci biir. Mhm. Mhm. waaw léegi Hmm. parce que man tamit li ma ko li a ciy déglu ak di ko gëstu yooyu moo mooy la terre de homme noir lañ wax moom la. Hmm. maanaam euh, mi ngi mel ku jël islam maanaam ñi am na ñoo xam dañoo jël islam def ko ay groupe. ci hmm. def ay conneries. maanaam tur boobu noonu nit ñi ay nit mën nañoo jël tur def ci ay di def seen i conneries ñoom it. loolu ni tur moo baaxul. wala nangam nangam. wala lu ko raw. Mhm. billaahi. waaw dëgg la te te yàlla ne la yow soo demee gisi sëriñ sax mu wax la loo gëm mu wax la dara nga gëm ko rek boo jullee ñeent fukki guddi loo julli doo ko nangu. waaw. Mhm. Mhm. ñu ko ah mais sëriñ si gisoo gaa yi bu ñu wootee dañ naan sëriñ waxtaan naa kilifa bi ñoom ñëpp ñi woote démb ci live tunkara bi kon saa à dire ñoom ñi ngi waxtaan ak seen taalibe yi ci suñuy problème ñoom xam nañ li xew de waaw exemple dama ne maanaam moom maanaam euh, comme li nga yow déggoo ko comme nit déggoo ko comme nit yow sa bopp yow nekkoo nit. waaw dëgg la maanaam non benn maanaam benn benn benn animal ngay doon hmm. parce que bu doonul nit Ah, man de loolu laa fi gisul man man ku fi xam diine sax ba di ko wax laa fi gisagul. Mm-hmm. Mm-hmm. Ah, mm-hmm. man mais kooku laa gisul senegal man kuy kuy jël alxuraan bi di ko tafsir pour. Mm-hmm. waaw waaw. ku ne xamal ci dara rek. Mm-hmm. kilifa la ci loola. Mm-hmm. waaw léegi nag man la ñun def ñu ko déedéet dañoo génn di di def maanaam moom dañu la fekk ñu leen génn leen diine ji ñu dee léegi moom moom leen diine ji maanaam yilif leen ko ci boppam. waaw léegi nag bu ñu ko yilifee ci leen ko boppam moo tax ñu ko mën a mën a ñu mën a jëlee ko ko. jaajëf jaajëf. waaw parce que moom diine ji moom ko mën a wëlbatee nu mu ko neex da koy wëlbatee. dëgg dëgg bu toog Sénégal daanaka diine ji dañ koy wëlbati rek di wëlbati teg di wëlbati teg ba dootul nuru ba ba dootul nekk diine ji nga xam ne moom yàlla waxoon mooy xam nga inna mhm. diine inna islam. mooy diine yëpp maanaam yàlla diine yi bari na la wax de maanaam diine bi mu la ko nekk mooy islam. Mhm. moom bi maanaam bi bi bi nit mën a yilif boobu du islam. Mhm. waaw bu nit mën a yilif rek maanaam du islam. jaajëf rafet na jaajëf rafet na. <laughs> man kay maa ngi doog a xam lan moo tax yàlla joxuñu joxuñu sax responsable pour ñu pour ñu pour ñu protéger ko alxuraanam parce que yàlla dafa ni maa maay protéger sama bopp alxuraan lii la xamoon moo tax yàlla li muy def yàlla du nit. Mhm. Mhm. waaw yàlla loolu la ndax bu ko bàyyeewaloon ak nit tey tey problème day am ci àdduna bi rek. Mhm. yeah mi ngi noonu jaajëf rafet na rafet na yeah yeah yeah jaajëf rafet na yeah yeah yeah jaajëf amul problème daa gaa yi bëgg a dugg dañoo bëri quoi jaajëf yeah rafet na rafet na jaajëf yeah xaaral ma dugal eh, kii nu mu tuddati Oke. Wow, assalamualaikum, Abu Bakar, Abu Bakar ngi lay wër de Wow, waaw jaajëf waaleykum salaam ça va Mm-hmm. ñu ngi lay fay. waaw thème bi ngeen di indi tey dafa am solo trop. ok mënoon naa woote. Mm-hmm. wax leen li nga xam ne ni mooy sama xalaat. ok maanaam xam nga olof Njaay tamit ñun Sénégal. Mm-hmm. Mm-hmm. man de xam naa ne dina dina doy waar par exemple nit koo xam ne nii àdduna bii nga nekk mënu leen ko bokk. Mm-hmm. ngeen wëlbate ko bokkaat même aljana dina doy waar. Mm-hmm. ci arab bi la njëkkee sax ci ara bi la njëkkee. Mm-hmm. parce que gis nga récemment li xew en Libye. Mm-hmm. gis nga tey Liban gars yi réclamé chaque jour. Mm-hmm. tey boo nekkee africain dem fa sax permettre u nga am doom xam nga yooyu yëpp c'est des problèmes qu'il faut régler. mais nag comme ñun suñu biir société amuñ des Galiléens qui risquent leur vie pour défendre leur propre euh, askan. moo tax muy demee nii. voilà débat bi yëpp loolu la. loolu kese la. Mm-hmm. billaahi mais man kay dañoo ragal suñu histoire xaw ma lu tax ñu ragal ko nag jaaxal na ma quoi. ragal bi yëpp lenn la. Hmm. on n'a pas des Galilée. bi mu ñëwee l'église dirigeait tout à bi mu ñëwee. Hmm. gis ne moom xalaat bi mu yore. Hmm. bu ko fekkee wax na ko dina sauver doomu aadama yi. amuñu ñu ñun dañoo amul ñu sacrifier seen bopp pour protéger ñu ñun loolay suñu problème waaw ñun li am mooy ñi nga xam ne nii ay philosophie jàmbur la ñuy ñëw indi mhm. di transformer bi ci ut xaalis loolu rek la ay dare ay ànd naa ak yow foofu ça serve à quoi ànd naa ak yow foofu jërëjëf rafet na réew yi nga xam ne nii tey ñoom ñoo yor yooyu yëpp ñoo gën a pauvre mhm. non da nga koy xool ci suñu biir rek suñu dëkk yi nga xamante ni dañ koo organiser mais ñaata nit ñu sonn ñoo fay nekk ci biir Sénégal yu am problème yu jéggi dayo yoo xam ni te dara lañ leen ci dul defal ngeen ciy teg seen bët jërëjëf dañoo manqué ay maam yu tey la seen bakkan pour ñun sénégalais yi coow li coow loolu la am na am na sax ñoo xam ne tey nañ seen bakkan mais du ñëpp lii la lii li ñuy dund nii boo buñ ko xoolee tamit ci histoire tey maa ngi taxaw ak ñeneen ak ñeneen bëgg sauver sénégalais yi am yeneen sénégalais yu taxaw suñu diggante ne di xaalal seen sëriñ ñun nag dañoo manqué loolu am na suñu maam yu rey seen bopp yoo xam ni dunduñu jàmm mukk am na suñu maam yu dundul jàmm ñu mel ne ay ñoom Lat Joor dégg ñu mel ne ñeneen ak ñeneen dunduñu jàmm dunduñu ko dégg nga ndax lan dañoo joxe seen bakkan pour ñun suñu maam yooyu dañoo joxe seen bakkan pour ñun te kenn du leen tudd kenn du leen tudd ñun tay moy kon histoire dafa delu ci wat ñoñu joxe won suñu bakkan pour ñun amna ñeneen ño xamni ne wuñu seen bakkan pour ñun dañoo joxe seen ba dañoo ñew pour dundu waaw ñun ne dañoo buñu ñu sañoon suñu mission yi suñu mami bayi won fi ñu yeggale ko mohammed sadiq xaaral ma ñëw sadiq xaaral ma am ñuma duggal parce que damay bañ jël risque quoi jugal père ousmane xaaral tuti ma ah, da am mais eh, seen numéro yi laa mënul gis nag gaayen Abdou ab eh, Aboubacar Sadiq mënuma gis waaw salam salaamaaleykum. wa ñu lay dégg bu baax.

da mm-hmm. ko xam ngirum arab arab ku xam islam de parce que sénégalais yi dañoo amul xam-xam ñu si bari ngeen jéggal leen mais bu islam non. waaw il faut ngeen la part des choses xam ne un arabe n'est pas forcément un musulman. un juif n'est pas forcément un juif de religion am na ay juif yoo xam ne ay yahud yoo xam ne ay musulman lañ. Mm-hmm. am ay arabe yoo xam ne ay yahud lañ. Mm-hmm. il faut que ñu bañ a jàpp xeet wi ak religion bi bokkul. am na arab ñoom dañu am aada yi jàpp jaam di jaay aada arab bi dañoo am aada yooyu. Mhm. bi yoon sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy judd boobu dafa faat fekk daal jàpp jaam di jaay. Mhm. jaam xaalis la woon alal ju bari la woon donc ku la ëpp la jaam mhm. tradition africaine noire ku la ëppale ak jur tool ku la ëppale ku moo la ëpp alal ñun ci africain yi mais boo demee ci arabe yi ki la jaam moo la ëpp alal. Mm-hmm. dañ daan tiitaroo jaam moo tax jaam dafa yàgg ci araab yi laata yoon sallallahu alayhi wa sallam di ñëw ba alquran di wàcc ba indi ci ay oyofal yoo xam ne ay bunt yoo xam ne pour mën a goreel jaam loolu bokk na ci li tax di alquran ñëwee yoon sallallahu alayhi wa sallam di mu ñëwee yàlla terewul njaam directement alquran terewul njaam directement interdit mm-hmm. ko li yàlla ne njaaloo dafa xaraam mm-hmm. li mu ne li mu xaraamal njaam xaraamul jaam kenn xaraamalu ko ci islam li tax mooy bu ñu amaloon ci boobu jamono dina indi coow luy ndax dafa fekk naar yi aadawoo jàpp jaam di jaay ba jël seen alal yëpp sëf ko ci ay jaam. Mhm. donc boo xëyee rek tey ko loolu dina indi crise économique crise financière ak yoo xam ne fitna ya cay judd ba ya cay dee ak xëccoo guerre ya cay am. Mhm. ba tax ñu def ci xikma mais kat jaam moom islam dugg ko. Mhm. ku xool philosophie bi ci principe bi nga xam ne diine bëggul jàpp.

du religion tubaab bi du religion nit ñi am ñëpp ko bokk c'est universel. Mhm. il mhm. islam boobu dafa yàgg a tegu ci. Mhm. ba yàlla bindee doomu aadama ba léegi islam boobu la commencé yàlla njëkk bind doomu aadama yi. soo ko bind leen ci kaw suuf. ñu dundee ko islamam boobu donc islam programme yàlla du doomu aadama programme ba mu ko ko ko dundal mu wat mu bind doomu aadama ko ci kaw ci mu njëkk bind Adama ak ñoom ñooñu islam moo leen mag. Mm-hmm. mu des léegi ñu war a bañ a jaawale parce que kenn ci. lu leen boole lu leen tax a jóg li ci professeur Cheikh Anta Diop bind lu bari bind ko ci wàllu pas-pas daf ko bind ci wàllu identité culturelle maanaam yow Lamine ku la xool xam ne ni ku ñuul nga say maam ñu ñuul lañu kon yéen am na foo bokk ci xeet. Mm-hmm. xeet yooyu bu ñu ko toppee dafa la yóbbu Égypte. Mm-hmm. Égypte la fa nekk tey ba tubaab yi ñu ngi fay gëstu yëpp ci wàllu pyramide ci wàllu science ci wàllu xam-xam. Mm-hmm. grec grec grec yi. Mm-hmm. ñoom ñoo def Égypte tibb xam-xam boobu yëpp indi ko. Mm-hmm. xam-xam boobu ña ko yoroon Égypte ca booba jamono deux mille ans trois mille ans avant Jésus-Christ. xam-xam boobu ña ko yoroon ña ko ña ca nekkoon kàngam ci kaw ay ñu ñuul lañ say maam la ak samay maam ak maamu Cheikh Anta Diop. loolu mooy dëkk loolu scientifiquement professeurs yi nekk ci àdduna bi yëpp waxtaan nañ ci à l'UNESCO ba Cheikh Anta Diop démontré leen ko fekk ko wedd ba jamono bi wax bi. ñun ñëpp d'accord ci léegi. Mm-hmm. dëkk boobu nu mu tudd ñu ne c'est un pays qui s'appelle le Ténet mm-hmm. mooy Égypte gii léegi Égypte yi bu ñu nee Égypte ñu ne naar yi mais Égypte yi naar yi moomuñu ko mm-hmm. Égypte ci njëlbeen nit ñi ñuul ñoo ko moom mais histoire boobu dafa am ñoo xam ne ñoo ko falsifié histoire man ak yow ak Cheikh Anta suñu histoire am suñu science suñu culture suñu civilisation yi nga xam ne ki leen sukkandiku tabax tey les pyramides yi nga xam ne New York nga nekk bâtiment yi fa gën a moderne tey jii yi fa gën a sophistiqué. tabaguñu tabaguñu technique bi ñu tabaxee pyramide yi ba léegi amul benn bâtiment au monde bu gën a sophistiqué ni ñu tabaxee pyramide yi amagul ci wàllu xam-xam amagul. te bañ koy def léegi mat na quatre mille cinq mille ans. kon xam nga xam-xam yàgg na ci kaw suuf te nit ñi ñun ñoo ko yore woon. histoire boobu dañu dem ba tubaab yi yahud yi nekk nañu Égypte yàgg nañu fa des juifs yàgg nañu Égypte def nañu fa ay siècle Hmm. nekk fa ay esclave ñoom esclave ñoom lañ fa nekkaloon esclave nit ñu ñuul ñi pharaon ñoo leen defoon ay esclave hmm. tey àdduna mooy dox juif yi tey xaw a yilif àdduna bi ak américain mais am na ay jamono juif yi tey ji ñoo nekkoon jaamu nit ñu ñuul hmm. kon xam nga kon xam nga esclave jaam yàgg na te nit ku ñuul rek nekkoon jaam te nit ku ñuul sax daan amoon na ay jaam nit ñi amoon nañu ay jaam dañoo jàppoon yahudi def leen ay jaam kon jaam du question tubaab rek moo jàpp ku ñu jaam mais ku ñuul tam jamono jàpp ni ay tubaab jàpp. Mhm. ba nga ba xam loolu juif yi dañoo complot bi ñu jógee Égypte génn dem dellu Israël la terre promise. Mhm. bu ñu amaatee doole dañoo ñëwaat bi ñu ñëwaatee dellusiwaat Égypte ànd ak ñu tuddee les coptes coptes yi tey boo demee mhm. ba Égypte ne la ko tey jii c' est des arabes coptes. c' est ils sont aujourd'hui dans l' église. l' église catholique copte égyptienne ba léegi égypte ñoo fa nekk ñoom c' est des coptes. donc am na ay arab yoo xam ne ay catholique lañu moom jëlee leen copt ñoom ñi ñoo compul ak yahud yi falsifier histoire suñu maam yi li ma lay wax nii les pharaons la civilisation nord-américaine ñu tudd les timides li ma lay wax ne yoon salaa sallam ñëwagul alxuraan matagul waaye nag islam ma ngi fi ndax islam moom moom mag alxuraan alxuraan dafa ñëw ca njeexital ga benn waxta ginnaaw ca njaal bi indi lépp yàlla indi ci alxuraan ba mu tàmm is lu is is alxuraan da indi loo xam ne kenn fekkiwul ko alxuraan indi ko. Mm-hmm. loolu mystère la ci alxuraan. loolu nag mooy alxuraan xam ne ay la loo ne maa ngi koy dund alxuraan indi ko. Mm-hmm. dégg nga loo xam ne maa ngi yow fekkiwuñ ko alxuraan di ko wax loolu ci la borom xam-xam ñu sukkandikoo ni léegi yëfu nit a mm-hmm. dem lu mu fekkiwul di ko nettali. dëgg Mm-hmm. uhum. vai. ñi di nga way dund. nit ñi doon wax la yàgg muy way dund parce que moom xam na li muy def la. Mm-hmm. du nit naar yi diina ji wàcc ci ñoom. Mm-hmm. wàcc ci seenu làkk yi yàlla ko bëgg noonu. Mm-hmm. islam bi li mu wàcc ci naar yi wàcc ci langue arabe taxul islam bi nekk yëfi naar. naar yi moomuñu islam bi. waaw loolu dëgg la islam yi universel. loolu borom xam-xam yi tubaab yi occidentaux yi. juif ba noppi ni muy ni muy màggee benn religieux màggewu ko tamit te li nga war mooy noppi benn ñaareel bi mooy naar yi bi ñu déggee nag léegi nag am islam bi dafa ñu nekk ay juróom dugg Mm-hmm. This one

dëgg dëgg seen seen seen seen. jaawale naar ak arabe du ma jaawale arabe ak islam l' islam n' est pas arabe. Mm-hmm. islam est universel le monde. Mm-hmm. léegi ci biir kër gi daf ci am ñoo xam seen i cosaan démb. Mm-hmm. te gëstu ay Cheikh Anta dugg Égypte yëpp indil leen xam seen maam démb yi ni ñu toll woon ci xam-xam ak Cheikh Anta def ci liggéey